yéene sa bopp dee ko yéene nit ñi lépp loo xamante ni nii yow leer na la ne yére bu la jotul te baaxul bu ko may sa nawle mm-hmm. léeg-léeg ñu génne loola saraxu yére sax wax la ne la na nekk nag ab yére boo xam ne boo bëgg la mm-hmm. ca la yool gi di gën a doxee bu dee da nga ne da bëgg a dimbali doomu aadama mm-hmm. yenn sarax yi dañ lay wax ne la ñeenti téeméer yi bu ko tas di ko def ay deux cent deux cent jël ko nga sarax ko benn nit boo xam ne leer na la ne <coughs> dina ci mën a ndékki wala dana dolli dépense mhm. ca añam dana ko fajal dara dana ko fajal dara xam nga ñii ku leen topp rey leen saa xale léeg-léeg nga dégg sa yaay ne billaahi ku la topp danaa rey président Ousmane Sonko ca Ziguinchor ci discours am bi dafa ne c'est pas parce que yow da nga nekk un maire bu bokkul actuellement ci mouvance présidentielle bi ñun ñu ne nañ la xeex ay yaa uutee ñoom doo ñoom duñ yow bokkoo leen am na ñoo xam ne victime lañ am na maire yoo xam ne daw nañ da ngay daw di dem ci mouvance présidentielle am na ñenn ñoo xam ne ñëwuñu pour ay privilège ñenn ñi ñëwuñu ndax dañoo tiit ñu toppee leen ci dara mais dañoo ñëw tout simplement parce que wuy ma ñoom niñ mel noonu lañ yaakaar ne noonu la ñëpp mel waaw da ngeen doon jàpp ay maire di leen noot toroxal leen bañ na tot birig mënuñu koo def si seeni koñ parce que da nga naan ñin ak ñoom bokkuñu camp. waruñu def résultat. Ousmane Sonko ne du ñu fi def politique politicienne soxor ba rayaale ñoo xamante ni nii saay wuyu ñoom duñ ci dara les parents pauvres bu sale politique bi fas yéene nekk population bi. Mm-hmm. politique bu sale de sugu nga lor ñoo xam ne duñ ci dara. lu toll ne hôpital Roi Baudouin 3000 naissances lay def par an waa Thiaroye fii la ñuy ñëw waa Parcelles waa Pikine waa Yëmbal Kër Massar maanaam hôpital la boo xam ni centre de santé la woon mais dañ ko mujj érigé yóbbu ko niveau niñ koy songee songee wuñ ko sax dalal jàmm kooku yow ab maire ñëw bokkul ci yow nga ne yow amoo xaalis mu indi la ay nit yoo xam ne danoo daaneel hôpital bi defaraat ko. xemes ak may seetaan bu baax xemes yaa ngi seetaan yow ak waa ministère santé ak ñu leen wax te dëkk waaye ne leen hôpital bi ba mu juddoo ba tey moom fii la ko fekk hôpital bi 82 la man 78 la ba mu juddoo ba tey ñu ngi gis hôpital hôpital bi mu suñ ko daaneel ñu ne bu daanoo ci nguuram ba defar ko mbaa du am deuxième mandat man bëgguma chaque jour ma ne leen sa waay. di sa intérêt xoolal. man politique ma ay waa Géejawaay ak man politique tuma. loolu mooy bëgguñu réew mi même bonum politique sax. non non non buñ tëddee nañ nelaw. yow moomu noonu waaye am nga lu la doy boo bëggee nekk maire deux mille vingt sept ñëwal sa waay mu ne dee ba bu nguur gi changé saa yi dañuy dem ministère ñu naan demal secrétaire général recevoir la. nga gàddu ay tubaab ñëw indi ñëpp ñëw toog ñu dëkk fii Grande-Bretagne bu ñëw toog yow amoo xaalis am na ñoo xam ne nee nañu ñoom pare nañu pour liggéey lii nga ne lii dee waxtu bu dajee gestu la laay lay la la ñëpp di jubilé yow nit war a toog fi mu toog mu jaral ko ngeen daje ci ab tournée boo xam ne Macky moo fa nekkoon mu yëy say nopp pour des raisons politiques sugu Alpha Ba. secrétaire d'État coordonnateur Pastef Guédiawaye keroog bi ministre bi di ñëw Guédiawaye fii dafa bette visite surprise pour xam hôpitaux yi lan moo ci ne bett gars yi génn woo ko téléphone ministre Ibrahima si woo Alpha Ba téléphone ne ko hôpital Roi Baudouin laa jékki-jékki rek def fi visite surprise ma bëggoon la fi laaj ay ay info daal hôpital bii day laaj laaj na ndimbal de xam nga kooku lu mu ko wax naam ministre la mais le maire de la ville mooy PCA wu bi. est-ce que duñ ko woo comme sax mu gën a rafet daal balaa ñu naan dañuy tëb ay état ak yooyu kooku ne ko très bien mais donne lui moo numéro kooku woo ma jotuma moo duggee sekk ne ma ministre bi mi ngi lay wow président Diomaye son premier voyage à Paris c'était le mercredi quarante-huit heures après la tabaski mais ministre bi ne ma tabaski bi di la mardi vous venez audience jour férié yeneen tax ma liggéey sa waaye ñu dem yóbbu partenaires yeeg yëpp ñu ñëw toog au secrétaire général ba ak tout ñu ne lii moo fi ne dossier bii mi ngi woon fii ca saasa offrir à le membre Pastef wala est-ce que maire je ne sais pas quoi mais ministre bi dëkk fii Géejawaay nag mais xoolal esprit boobu mm-hmm. yow nga ne nga ne nga ne amee Aidara avec tout ce qu'il a vécu du toog pour sant ñooñu gërëm ñooñu man lu may wut ministre bi dafa may may xaalis Alpha Ba dafa may yónnee enveloppe ci ci lu ma wax noonu rek mu dégg ko di ma di ma may xaalis lu may may mais ku may waa Géejawaay ambulance médicalisée bees poul actuellement ñu ne ci projet bi hôpital Roi Baudouin ak hôpital Youssou Mbargane ñoom ñaar la ñu waral démolir tabaxaat leen le bailleur là ak technicien bi dañ fay ñëwoon temps yi pa semaine bii passé kese l' actuel directeur recevoir leen yow nga ne kii bokkul ak man parti naa ko rey mairie ville Guédiawaye waxaat ak beneen bailleur boo xam ne stade Amadou Barry gradin yeeg pelouse beeg lépp pelouse bu bees defaraat gradin mu am ay chaise yow nga toog yow en tant que ministre ne ko soo laalee soo laalee ak maire bi ma rocc sa licence. kooku it honnête ba dee ne ma diw nee na su ma liggéeyee ak yow mu rocc sama licence te man li nekk si sama ginnaaw ëpp na sept mille personne presque dix mille personne yoo xam ni suñ société bi lañ yaakaar pour añ reer ndékki man na ko yàlla baax ba kooku bi nguur gi changé lañu ñu toogaat table négociation pour indi pelouse bu bees stade Amadou Barry ak defar gradé. ci lay doog a ñeme. soo ko jël kàddune ñin amul maire bu bokk ci ñin ak maire bu bokkul ci ñin waaye lii jàmm la. du jàmm. waaye ñee bon ñàkk jom soxor iñaan ba iñaane ñoo xam ne yow stade bi ku fay football man match dimanche ki bayaal bi laay footballé bu ñu ko ñoom bii ngay jàpp say mbokk fay football hôpital bi ku fay faju yow nga ne yow waa géej waaye pour des raisons politiques ngay rey lu tolloog cinq cent mille personnes mais am na ñoo xam ne dañuy caalit yaakaar ne ni ni ni seen njiit yu mel noonu la Ousmane Sonko mel moo tax maire yi baree bëri di daw waaye ñun de dañoo toog résister malgré toutes ces difficultés malgré les insultes ba pare di influencer ay influenceurs pour ñuy influencer la population di ñu saaga ñun te li tax ñooñu di ñu saaga yow yaa ko liggéey ñii buñ gañe woon ba léegi ñii dañ doon gañe la vingt quatre le vingt cinq ba delloo leen maire bi delloo ca rajo ba toog loolooy dëgg mm-hmm. moo tax politique am na ñoo xam ne ñu ngi ni xew saa yi bu ñu xëyee dañuy yor këriñ di rëdd pour xool ñaata jour ci des parce que yow liggéeyal sa askan moo la taxoon jóg ay nit taxaw ne la bu mu ko fi liggéeyee nga ne leen xoolal mairie bàngoog kër gàngoog jël leen dellu fa nga nekkoon mu gën a neex ngay añ reer ndekki toppatoo sa njaboot parfois yow. loolu sa da koo jàpp. déedéet. li jàpp la. léegi nag soo waxee ci Ousmane Nangam ñu naan ay lii ak lee ak lee ak lee. kii bokkook ñoom te bokkuñu ak yow maa tey. yaa ko wax. man mii man maa ko wax. ñoom mii yaa ko wax. <laughs> te ñu ngi foogoon ne bu Ousmane Fallo li muy njëkk def mooy jàpp ay maire di leen dëbb la ma ko wax Ziguinchor la yow tu as un grand cœur nit koo xam ni yorub nguur ak la yàlla def ca nguur buñ ne mbiliñ mbàcc rek nga ne ko tëll jël maye. Mm-hmm. nga ne cumul de mandat sa parti bëgg ko ñaata ministre ñoo fi nekkoon ay maire ah ñaata directeur généraux ñoo fi nekk woon sa waay lépp lu mu mës am ci politique joxe na ko yenu ay siège u maire joxe yenu ay siège u député joxe yenu siège u maire am Ziguinchor jox Djibril Sonko yenu présidence de la république yéene ko nit ku bokk ci parti présidence la plus haute fonction mu mënoon wax ne bu dul man na carabiner na projet bi